kilifa ak njabootu Seydina Limaamu Laay gi sàkko ngir jàmm ci réew mi rek wallaay wallaay euh, ONU nee nañu na Sénégal ubbi ay enquêtes yu gën a gaaw ngir ñu xam ñetti nit ñi génn àdduna ci manifestation yi mujj ku leen rey ku yoroon balvere moom booy boo nga ut sa càngaay waaw kay aar suñu élection ñoom nee nañ dàq nañ seen marche pacifique bu démb bi waaye taxu leen a wàcc le 17 samedi bii am na lu ñu naal ah, Moustapha Diakhaté neen ëpp day def wàcc Ousmane Sonko Abdou juuf as kaddu yi ñu ko fi askanale woon génn na ca ba set président ba woon fii ci Sénégal nee na conseil constitutionnel ñoo war a jël seeni responsabilité xool euh, situation bi organiser ay élection ndax usman Sonko day dem ca jaloog ba am déet boo dégloo waxi Guy Marius Sagna wala Alioune mbaa nga seetlu yeewi askan wi nanuy communiquer dafa mel ne Euh, Ousmane Sonko libre oui Ousmane Sonko dialogue non lan lañ ci war a jàpp loolooy grande question bi ah loolu programme la programme la suñ mbokk quartier yi tey la seen koor gi tàmbali yàlla leen yàlla may koor gu sedd wallaay ñaanuma parce que nga lax laay xalaatee a ah, ah, ah, ah. Euh, benn xale bu jigéen ca Louga dafa dugg ci benn magasin doon fasaat ci borom boutique ba jàpp ko xale bu jigéen bi.